jéggalu na yonent bi am na yaqiin ci ne yonent bi jéggal na ko man du ma dégluy waxam waaye comme yónnee nañ ma ko te ñi ma ko yónnee dañuy xëy na sàkku ñu tegee fii ci suuf Ahmed moom fu mu yem moo ko fa yemale man nag li may ubbee mooy nee nañu ko jéggal ko jullit ñi man jéggaluma ko man man jéggaluma Ahmed loolu nag am naa ci droit am naa ci droit parce que yii muy def mook firawna ba muy wax naan amantu annahu laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israila wa ana min al loolu la ahmed mii di def firawna ba mu demee bay lab la wax kàddu yooyu suñu borom ne ko déedéet du waxtu wii fa nga ko waroon a defee defoo ko fa ahmed mii dama yaakaar ne dafa weesu fi mu doon war a delloo ginnaaw moo tax sañatu a def lu dul lii muy def nii ahmed faw mu continuer faaw mu dem àggagul ci cëppaandaw la ñaata yoon la fi def ay njaaxum wax ko fi ñaata yoon Ahmed ña ko dóoroon dóor yu metti yee ca Kaolack ñooñu rek a xam yoon wa ñooñu képp ñoo xam ni ñuy jëflanteek ku mel na Ahmed yaqiin bi nga am ci sa jégal na kooku sa affaire la ndax tappale nga yàgg fenn wax lu dul dëgg yow Ahmed munoo xam ci sa digganteek sa borom dara parce que yow yàlla dala jéppi mal'un yow mal'un ba nga ba ma xamee Ahmed ak léegi mu musuma dégg kàddu gu rafet génn ci gémmiñam wax na ba saaga fi yàlla xas suñu boroom kon kooku mëntu la wax lu ko tiim waaye bii nag yaakaar naa ne dana ci teg beneen maa ngi koy may deux mois maximum ñi nangu tuubug Ahmed xaar leen da ngeen dégg lu leen yóbbu alaaxira ci mettit Ahmed kalbun min kilaabin naar du deltu ginnaaw maa leen wax lii du deltu ginnaaw luy delloo Ahmed ginnaaw xawma ko xawma ko xanaa mel na moom di jëflanteeg moom ci nii muy jëflanteek nit ñi yëpp ñu war suñu kaw te tëñoo wàcc réew na xamadina indiscipliné na te lan foo ko teg yow Ahmed li ngay def dàqooñu ko dàqoo ñu yii ngay def di jaay ay bandeeg reewandeeg cëpp-cëpp ci kaw nit ñi loolu ku ko mënul ci Sénégal amul ñëpp dafa tolloog nit ñi bokkuñook ñoog yow bokkuñook ñoog yow jikko bokk ñoog yow melokaan ak façon waaye nag boo ñu woowee ci yooyu asalaamaaleykum pare nañ ci parce que nag lii moom leneen du ko faj lu dul lii Ahmed nit ñi pareeguñ ci yow pareegoo ci ñoom pareeguñ ci yow pareegoo ci ñoom xam naa ne yàggatul léegi léegi nga defaat leneen comme nag réew mi moom amul loi bu la mën a arrêté ah ñu ñu ñu teg ñu loi ba fee xam lu ñuy def ak yow réew mi amul yoon ndax yow waxtu wii waroon naa fekk ñépp ñi nga xam ne ñii lislaam ñor na leen seen kàddu àndandoo di benn defuñu ko waxtu wi waroon na fekk yow nguur gi ña nekk ca kaw waxuma procureur ñooño ñoo lay porter plainte wax ji féete boor nga may nit ñi jàmm mbas ëpp na ëpp na Ahmed man jéggaluma la te yaakaar naa ne ñi gëm yàlla gëm yonent bi gëm baax ak yiw duñ la jéggal parce que du jëkk jëkkul tey c'est pas la première fois ngay wax lu bon di ko jëmale lislaam te pareegoo foofu la yem nag en attendant du ma tàyyi mukk ci Ahmed te bu ma kenn tàyyiloo nag